actu du jour dañu koy doo rek communiqué bu jugee rek ci comité d'organisation wu événement bi ñu duppee ziara annuelle bu Léona Niassène ñu jàpp ko rek ndiki samd bi ñu dëtmal ko fukki fan ak ñett ci weexu mars atum 2021 bi waaye itam rek ci biir communiqué ba daal nay xamle ne lépp loo xamante ni rek da di mesure kër docteur digle ko ñu ngi ñaan rek ñëpp daal di koy respecté bu ñuy ñëw rek ca boobule événement waaye communiqué ba yemu ca Cheikh Ahmed Tidiane Niass mi nga xamante ni mooy xalifa Léona Niassène daal dina invité képp koo xamante ne ni rek chef religieux nga ak ñi nga xamante ni ñoo di taalibe yi ñu daal di ñëw rek daal di fekk si bile événement ñu ndi rek ginnaaw rek lu tollook une semaine mu daal di génn àddina moom Serigne Atou Diagne nekkoon responsable moral bu daayira bi di is Hizbut Tarqiyyah moom Serigne atu jaañ nag jamono jii rek ak njabootam dañoo jaaxle lool ni ko journal bi bindee rek nee na ginnaaw ba mu faatoog léegi daal njaboot ga dañoo amee njàqare lool jamono jii ginnaaw rek bañ bëggee jël li nga xamante ni moo di seen kër gi nga xamante ni moom lañ dëkkee jamono jii waaye itam njaboot ga xamle nañ ne seen waajuru góor wi rek moo tabaxoon boobu boobule kër kon nag duñu nangu rek ñu daal di koy jël ba tax rek njaboot ga ña ngay ñaan Serigne Youssou Diop ñi nga xamante ni moom lañ toftal rek ci boppu bopp boobu boobule ngir mu daal di empêché boobu la déguerpissement nga xamante ni bëggal nañ leen ko jamono ji rek ci seen dëkkuwaay dañuy daal di jubali ca diwaanu cité mixta ginnaaw rek bañ bañee li nga xamante ne nii moo di violation couvre-feu ak lépp luy rassemblement jamono ji ñu gis ne rek dañu ko daal di arrêté ba tax rek division des investigations criminelles daal di rek dugg rek ca appartement yooyu nekkee foofee ca cité mixta benn appartement rek ñu daal di fay jàpp lu tolloog fukk ak ñaar rek ci ay doomu aadama ginnaaw bi nga xamante dañ faa amal rek ab soirée ci jamono ji nga xamante ne dañoo tere lépp loo xamante ne rek da di rassemblement ak di violer lii di ak couvre-feu li tax rek négociation mujjul antul buñ sukkandikoo rek ci libération ndax dañ faa jàppale ak lu tolloog ay cornetu yamba yu baree bari ba tax rek ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàppee foofee rek ca lieu yooyee daal dinañ leen jàpp ba dinañ leen defeere ndiki suba ci àllarba ji ñu daal di wéyandi rek daal di wax ci benn xale bu jigéen boo xamante dañu koo kidnappé ba pare daal di koy violé dañu ko def ñu rek ñetti sénégalais la ak benn congolais mu nekk rek benn bande malfaiteur boo xamante dañuy faral di opérer ca Grand Dakar ak benn tali ak jëppal ñoo def rek li ni mel ba ndaw si nga xamante ne nii jàpp nañ ko ay atam mi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñett ginnaaw rek ba ñu ko kidnappé dañu ko daal di violé daal koy jàngal li nga xamante ne nii amoo di jaay boppam ba pare rek di ko naan loo li nga xamante ni moo di alcool ba tey it di ko tuxloo li nga xamante ne nii moo di yàmba tey it di ko jaayloo ndaw si rek ginnaaw bi nga xamante ne xale boobule daal dinay rëcc ci la daal di demee rek nettali famem li nga xamante ne ni moo di band boobee daal ko ko def ba tax rek yoon daal dinay teg loxo ñi nga xamante ne nii rek ñoo ko doon def loo li ni mel moo di ñetti sénégalais ak benn congolais ba groupe bu yooyu la teg nañ leen loxo rek niki démb rek ci altine ji ba daal dinañ leen i defeere ci ñaawteef yooyu rek ci la ñuy daal di deseen yi daal di jubali rek ca diwaanu njaareem lañu fa fekk rek mu di benn ñaareel ak benn aawo bu doon xuloo ba mujjee sax xeex ba tax rek ñaareel boobee daal di nag ginnaaw ci dóor yi métti yi nga xamante ni seqoon na ko gujjam boobu lee di aawam ba daal di koy mat rek ca tuñ ma ba xaaju tuñ ma rek daal di disparaître noonu noonu la ko journal bi bindee ba tax rek ki nga xamante ni moo di mbokk aawo boobule moo daal di xamle ba jamono jii ñuy wax ak yéen mu sukkandikoo rek ci bi di Seneweb ba léegi rek benn parti boobee nga xamante ne ni rek ndaw si dagg na ko ba léegi kenn gisagu ko jamono ji ñuy wax ak yéen rek ñaareel bi jàpp nañ ko bu yóbbu ko ca prison centrale bu Bawol waaye rek ba jamono ji ñuy wax ak yéen aw bi nga xamante ne ni rek moom la ñu daal di dóor ba gaañ ko mi ngi ci structure sanitaire yi ginnaaw rek ay gravité yu métti yoo xamante ne ni amee na ko rek ci wàllum wér yaram mu nekk rek coow li nga xamante ni moom la ñuy gën a waxtaane ca village u Gale bokk rek ca commune bu Ndaan Seen bokk rek ci région wu Diourbel ñu wëyeen yi ca diwaanu Tambacounda daal di wax rek ci fièvre jaune bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko rek ca Kidira bokk rek ci région wu Tambacounda jot nañoo am lu toll ko ñeenti cas rek ci épidémie boobee ñu duppee fièvre jaune ci ñi nga xamante ne nii rek dal na leen rek am na ci ñaar ñoo xamante ni dañoo ñàkk rek seen bakkan ci boobule fièvre ba tax rek askan wi tiit ba tax rek jamono ji rek fièvre bi na muy def rek ca diwaanu Tambacounda tax rek danañ amal benn campagne de vaccination rek niki 15 février bi ñu dëtmal Ah, dañu koy jeexaleek naqar bu tiis bu wàcc ci askanu Sénégal mu di maître mu ture ginnaaw rek ba mu làqoo rek ndiki démb ci altine ji yamoo ko benn fan ci weeru février atum 2021 bi moom maître mu ture li ko faat du leen rek lu dul cancer ginnaaw rek ba mu ko sonalee loolu ah, ci la daal di ñàkkee bakkanam ba dinañ ko jenc rek ndiki tey ci talaate ji yamoo ko ñaari fan ci weeru février ci diwaanu Touba équipe bu 24 actu yëpp di ko ñaanal suñu borom xaare ko ca aljana ya gën a kawe taxawee li rek moo fi gën a fës amee internet yi dig daje rek la leen di jox ba lëg ak jàmm